dimanche 30 octobre dimanche 30 octobre 2022 ici au terrain Galgui avec Jax Production pour une mise de 2 millions de 2 millions de francs CFA Wow, dimanche 30 octobre ici au terrain Galgui avec une mise de 2 millions le tambour major de euh, Momogam là euh, ici c'est la mise en place on n'a pas encore démarré le tournoi euh, c'est le début quoi, le début des fanfares. On est là tout droit ici en face, franchement. Waouh, waaw ñu terrain gi euh, Jax moo woote 2 millions. Waouh, waouh, Jax moo terrain gi 2 millions le 30 novembre 2022 est ci terrain Galgi. Waouh, avec une mise de 2 millions Il y a plein de gens qui. mise en place la mise en place waouh, nekk waaw waaw ñu ngi ci avant premier bi tournoi bi commencé gul mais tekkat baa nga ci 4 baa nga ci gaa ngi ñëw tank tribune noonu la loge est là la loge est là réservée au biais de 5000 francs les chaises là sont à 3000 francs le pourtour derrière les grillages là c'est à 2000 francs vous avez vu aca geew baa gars l'équipe de TV, sont là l'autre mise en place ici c'est la Lyon, waaw waaw vous avez vu Midou Diouf Bignona TV est en ah, devant vous vous avez vu gars yi ñëwaguñ de ndànk-ndànk rek lay ñëw waaw waaw géew gaa ngi noonu gars yaa ngi ñëw ndànk-ndànk gars yaa ngi ñëw ndànk-ndànk mais commencé guñu Mbengue est là mais commencé gul way euh, aha moom ñëwagul mais seen gars yaa ngi noonu commencé waaw waaw.